ci fi ci ndama Touba ndaamaatu Ngélémou dafa am ay yengu yengu yu fi am yëngu yoy nak dara walu ko dafa mel dafa am ñu fi nek ño xam dañuy diingat Serigne Touba ci am indi fi menen jangale tay ji nak yalla dogalon Cheikh Sidil mukhtar santane am balé ci Touba ñom ñu fi tante di fi wote mel diina lañ fi wote waye dañ ci rax lenen lo xamni ni bokkut ak li sëñ Touba sañ ci bi ba pare di ci di ci duggal yeneen xalé serigne bi yow no tuddu man Abdou Khadim Sarr Abdou Khadim mbir mi numu mbir mu ni mu demé moy ni tey jii dañoo sant yàlla bu baax a baax ndax occasion bi ñu am tey parce que sëñ bi bi mu wootee mbale mi mbale mi buñ ko defee ren déwén lañ koy jàpp ku nekk xam na ne buñ safaree saa yu weeru safar taxawee dañoo war a bale sëñ bi tànt fi ne moom day def ay tari alxuraan te lii dañoo yàgg a naqari ndax saa yu sëñ bi joxee ndigal pour nañ jàng kaamil moom day tëj jàkkaam day tàng tëj jàkkaam lànk te ni muy doxee da leen muuruloo ak di leen wax di def ay affaire ibaadu yi ñuy wax ni sa njiili mooy ku koy def si dëkk bi moom mooy sa njiit ndax ay day am ay gan gani turki yéen day am lépp am na sama baay bu mu naqari woon ba mu yóbbu ko ñu dem sëñ Muntaxa ba mu demee ñaari gone la formé ñuy tari alxuraan mu daani lii laa nekk si dëkk bi ñun ñi xamante nag man daanaka fii laa juddoo ndax damaa fer ñëw fi man yàgg naa fi jumaa ji tey ji nga xamante jumaa ibaadu la ñu dañ ko fi bàyyi dem di jullee ji si yeneen jumaa yi ndax dañu bañ ko fi jàng xasida dañ fiy kebali seeni loxo dañ fi kebelali seen i loxoy julli boo fi nekkee booy jàng sa xasida ñu ne la ñu ne la doo fi jàng xasida alxuraan nga fiy jàng te ñun ñu yaakaar ne sëñ Tuubaa moom xanaa mooy alxuraan xasida it mooy alxuraan ah lii nag tey bi mu amee tey occasion ñu daal di ñëw ñëpp taxaw ñu dañ dañ fi def programme ñëpp daa dajale daane ah sëñ Jili xanaa moom yëgutoon ne sëñ bi dafa santaane dañoo santaane tey la mbaleem Touba ndax ñaari fan yi safar moom ñëpp ko xam juruta wooteeti si rajo sax saa yu safar teroo ñaareelu fan ba war nañoo dem moom mu tànn fi mobiliser waa koñ bépp ne dafay tare loolu lañ wax ne tas nañ lépp nag ne ko loolu du fi am sëñ bi moom ñaari woote fi am saa yu sëñ ñun amul ñun ñun ka beneen woote du fi am waaw neen ñun nag xeeb nañ suñ diine gone mi sax bu ñu waxanteeg suñ gone yi ñu naan leen waat leen dañ naan ñun gëmuñu sëñ Touba ba waat loolu moom man maa ko mën a seede moom waaw li ma bëgg daal mooy ñu ngi ñaan ngir yàlla ak jëmmi suñ tubaa ñun li nga xamante ni moom lañ dund suñ bàyyi nampatal si ñu bëgg seen nampatal suñ doom mu suñ tubaa ba jeex tàkk loolu lañ fi bëgg a dundee waaw ak war may dëkk bi loolu lañ bëgg ñun nag ñun nag du ñu policier du ñu am de loi sañu ñoo dóore sañu ñoo def dara waaye ñaan nañ seigne Sidi muhtar sunum serigne Touba Mbacke mu dimbale ñu lillahi wa rasul yi si yar bi ñu suñ bàyyi yaron mu dimbale ñu si dimbale ñu si seigne bi joxel ñu kon jàkka ji koo da. ni dafiy nekk ñu fi dégg ay khassida comme daru minam suñ xëyee fajar sax xasida la ñuy teg ñun yaakaar wuñ khassida ak alquran dañuy jàng alquran yaakaar na ñun suñ kër daara la daara seigne suñ moy suñ kër moy sama waajur mosu ñoo xeyta waccu wuñ fa kamilu alquran ñaari kamil wala ñetti kamil xana li man man li moma doy mom la bëgg mom la sama si wa lo rek la señ jili nak damay damay wax len am mbacke mbacke ñun xàmmeewuñ ku sant mbacke ku sant mbacke ku ñu gis yu ñu la sa bay liñ bëgg moy nga liggéeyloo ñu ana lan tax di jëri ñu nekk ba Cees ay ay ño xamanteni ay tuba yu gatt lañu sol ay neser yeen sax ñu ngi fi ay ñu muru ba do gis seen kanam yi ñi ñu wax ci rojo bi ñu ngi fi ci jakkam wa mbir mi dal li wax di señ bi wax legi jall rek lu ëpp tuuru dekk nañ ci koñ bi nak mbir nak ne du tew ñu netal te lépp loo xamante ni bii lu mën doon lu ne rek da amul témoin lu amul témoin rek leerut te liñ lay wax nii amul ci kenn koo ci xamante ni tey bu ñu taxawoon ne nañu indi preuve wala ñu indi ay leeral ñu mën a jàpp ca loxob kii ne la kii moo defoon nangam lii ñu ne ko jóg fi bu dee ku jàng xasaayit la ñu ne ko fii duñ fi jàngee xasaayit mën la jàppal ba ca loxo ba ne la kii moo fi doon jàng xasaayit ñu ne ko génnal dëkk ñu ne ko génnal bàyyi bàyyi bàyyi daam ba bàyyi na gar da jàkka ji léegi feneen lay dem di nodde ñun jëfi sëñ tubaa rek lañu woon ñun sëñ tubaa ci lañ juddu ci lañuy dee moom lañ nàmp waaye nag bu fekkee ne dara xew na nga xam ne yow lu toll ne safar mbalem tubaa nga xam ne am na sax paas Europe di ñëw fii di ko def ñun nga ñëw baas ci suñu buntu kër ñun buñ la toppee duñu duñu jëfee njëgalal wala yow buñ la lay li fi wàcc ci doomu aadama nga tàntal leen defal leen ñu lay wax nga ne yëgoo ko yëgoo ko woon kan xanaa taalibe yi ña nekk Europe sax te amam njàng xam ne yow mii sëtëb sëñ tubaa nga nga ne yow yegoko won da nga da da da nga ko dee te li japon nga ko depuis de mbalem Touba ñëpp xam nañ ne wax deug yalla murib gatt gatt xam-xam xam nañ buñ duggé premier safar deuxième jour ba mom ci lañu ñu nekk ba ñetti fan yoy ci lañu ñu nekk ñun nak li mom li ñu wax moy nekk suñu mag ñi nak ger nañ ne wax nañ ñoo waxa waxa wax dem na fenn fu ne mu yobul leen fa yobu fa naan ni lañuy defal señ Touba ci ni lañ defal Touba ba kenn ku ne wo na leen tekkul leen xamal leen ne mo leen gëna gudd ab tànk moo leen ëpp relation mo leen gëna am mo leen mo leen mo leen gëna xejji ci dëkk bi ci moo leen ëpp relation ragal loo mag ñi ñun nag ay ndaw lañ di doom yi dox dëkk bi li ñuy wax nag lu leer naññ la dañu koy ñaan sëñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo ñu bokk yu lif ñëpp ñun dañoo am lu leer nañ am ay témoins yu leer am firnde yu leer nañ fii ku fi ne tey bu la neexee nañu yëg ci kaw xool tey bu la neexee nañu wër jumaa ji nañ ko cercle bu kenn génn ñu woo fi ay ay kilifa woo fi ay témoins yooyu ñu ñëw dugg ci étage bi xool danañ fi gis ñoo xamante ne bii nekkuñu ci yëfi sañ Touba tey nekkuñu ko ëllëg nekkuñu ko leen nekku ci ginnaaw ëllëg te duñ leen ko may nag lum ñu jaral nag danañ ko jaral waa lii rek lañ leen ñaan. ko fa waaye biir làkkub jàmbur kenn du fa ñëw di fa wootee leneen lu bokkut ak la fa borom bëgg waaw ci ndigal dong nag lañ fas yéene wéy waaye bu fekkoon ni suñ coobaree moom ci jëmmam mën nañ ko fee génne mbooloo meeg ku fi nekk waaye nag comme baat bi ñun ay ay taalibe lañ ci ndigal la ñuy déglu ndigalul sëñ bi la ñuy déglu maanaam lum ñu ci lum ci sant rek ñu def ko lu ne jaral nañ ko tamit nag waaw waaw waaye duñ ko baax waaw maanaam jàkka ji nangul ko fi jàng xasaayit bu sëñ bi wootee jàng alxuraan duñ fi jàng alxuraan ni muy jullee ni ñuy jullee duñ bokk maanaam doxuñ si daal njàngalem sëñ bi doxuñu ci ndigalul sëñ bi doxuñu ci lenn sëñ bi ba pare di mbubboo sëñ bi ñi ñi ñiñ fi woowoon ñuy garde ki fi ñëwoon ci guddi maanaam daa ñëw ba ak cant lañ ko informé ñëwee jël téléphone di diglu ay jàng ñun ko lii kenn du ko fi diglu waaw ñun ko lii kenn du ko fi diglu ba mu xëyee moom it dégg information bi mu a ah ñii kat daa mel ni ay cëkkal maan lañ man doxuma ci euh, lu dul Sëñ Tuubaa doxuma ci ñooña dañoo dem waaw ñi fi newoon di garde ñoom dañoo dem ñun ñi na nga xam nag ñooy habitants koñ bi en tant que jeune mobilisé wu na ñun ñëpp maanaam ak ak ak l'ensemble maanaam ñi nga xam ne ñooy dirigeant yi dëkk bi ak kilifa yi ndigal lu ñu jox rek maanaam pare nañ pour maanaam jëlee leen waaw di ñaan sëñ Sidi Muxtaar nag moom mi nga xam ne moom la ñu yaakaar ak ñi nga xam ne moom la dégg sécurité dëkk bi waa Safinatul Amaan ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu yor wàll woowu ñu génn raxas leen génne leen fi ndax ñi ngi yàq jeunes yi ñi ngi leen di gëmal leneen loo xamante ni bokk dëkk maanaam maanaam li sëñ bi doon digle ak li mu doon jàngale waaw loo xamante ne si maanaam ëllëg maanaam buñ ci waxut maanaam génération bi ñëw ëllëg maanaam leneen la ñuy gëm leneen la ñuy doon waaw yoonu Sëñ Tuubaa dara loo xamante ni lu ko war a nar a suufeel mbaa lu ko war a jëme doole kenn ku ne war nga caa bay sa sa waar ba mu jeex waaw ca ca ca kenn ku ne fa nga nekk yaa fa nekkal Sëñ Tuubaa te ñun ñoo fi nekk waaw jërëjëf Fall waaw Baye Fallu Cheikh Moustapha Mbar mu sëñ Mor Aminta waaw ñun nag li nuy wax rek lenn la ñun ay taalibe sëñ Touba lañ ba jeex tàkk liggéeyal sëñ Touba moo nu ñor gëm Serigne Touba wóolu ko yaakaar ko kon nag képp koo xamante ni da ñëw fii ci dëkkub Serigne Touba bi bëgg fee indi leneen loo xamante ni dëppoo wut ak sart yi nga xam ne Serigne Touba moom la fi teg ñun dañuy xaar suñu tànk Touba taxaw ci loolu di woo Serigne Sidi Mokhtar mooy xalifa général lu Mouride Serigne Cheikh Jëmb Fall khalifa general de Baye Fall sëñ Modou Lo mi nga xamni mom mo jité jiite to Aman sécurité deuk bi ak seigne Bass Abdou Khadir mi nga xamni moy porte parole mouride ñu ngi leni wo kep ko koo dafa taxaw ngir bañ seigne Touba barki mam Seera Fall fum nu woo ñu barki cheikhul khadim buñ ci dee xamni aljana lañu jëm mu ngi melni kuy xaré Badar waaw kuy xaré Badar bo ca dee aljana nga jëm té wërna ñun nak mam Seera Fall lañu jëm ak seigne Touba wa am ño xamanteni ni ñu bari si la ñu bokkoon dañ leen cee génne ndax tey boo jëlee xale bu ndaw xam nga xale moom lam juddu lam màgg rek loolu lay xam boo ko sa bu ñi ñi nga xam ne ñoo ne ci koñ bi bu kenn jël sa xale di ko jox ñi nga xam dañoo bañ Serigne loolu du képp koo xamante ne da dëkk ci koñ bi jël sa doom jox leen dinañ la def dinañ def li nga xam ne moom ngay bañ ñun nag Serigne Touba lañ gëm wóolu ko yaakaar ko ku dul moom lijjantiwul la Serigne Touba fu mu wootee barke maam Seera Fall dañuy dem ba jeex dégg naa bi ni waree jàng alxuraan dañoo tëj seen jàkka ni kenn du fi jànge ñu sëñ Sidi Mokhtar woote deuxième safar nga xam ne fu la mën a fekk bu nu masaan fekk xel kom ñun doo ngay Serigne Saliou dañuy bàyyi ñëw fii liggéey si kon xam nga ne loolu lu rëy la ñun Serigne Saliou moo nu yar lu ne ci moom moo ko lu ne ci ñun moo ko def ci ñun waaw. biñ wootee alxuraan ji fii danoo bañ ni kenn du jàngee ci jàkka ji booy jàng xasida ñun la génnal xam nga loolu kon li li li nga sëñ Touba moo fi indi xasida te xasida i ci la lépp ne looy faj ci xasida Serigne Touba boo ko fajee mu faju barki maam Seera Fall Mbàkke gis loolu man mën naa cee teg bët man am na ñoo ci xam ne nii dem nañ bu ñuy julli duñ julee Touba Mbàkke leen julli seede yàlla jaalibatu gii ku ko dégg ku ko dégg xam ne Serigne Touba rek moo wér lim ci dëxëñ lu rëy la ku koy jàng barki maam Seera Fall lépp loo ne ci ndëng te di nga ko ba ku koy jàng di dëngal dalay rey nga dem na boo ko bàyyee nag di jubal maam Seera Fall seera nañ danga dem ca kaw ca kanam di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu baax a baax jërëjëf Serigne Touba. sabote pour sabote ak diir mbagg Serigne Touba nag du ku ñuy diir mbagg du ku ñuy du ku ñuy sabote tuuti na ci moom tuuti na ci waaye nag dajoo mbubo alxuraan jeeg jant gi waaye maanaam gëmuñu ko waaw lu doon li Serigne Touba woote bis keneen di woote leneen maanaam duñ ko nangu duñ ko ci bàyyi waaw duñ ko ci bàyyi. waaw li ñuy jeexalee mooy ne que li ñuy wax lu leer naññ la. doonul ñoo xam ne dañoo jëli ñeneen di leen ko wax loo wala ñun ci koñ bi la ñu dëkk fi lañ dëkk xoolal jàkkaarloog moom sunu kër yi jàkkaarloo nëbb wuñu làq wuñu dañu ne fànk te képp ko ci xamante ni amoo ci lu la leer rek nañu woo ñu toog ñu waxtaan ñu leeralal ci lu leer nañ bu ñu la <laughs> dama lay laaj doom yi si ku sant Mbàkke nan lay nekkee si dëkk bi di wuti ku ko liggéeyal ah di wuti ku ko liggéeyal ñun xam ne ñu ngi def suñu daayira ku woote muy jigéen ak góor ku sant mbàkke foo ñu woo ñu wuyu la fa foo ñu woo ñu wuyu ñoo ko war a baasal ñoo ko war a tàntal ñoo ko war a toggal lu tax woowuñu kon lii du taalube di la baalu àq ci ni nga taxawee ci liggéey bi ci daayiratu safinal amal te ginnaaw nga jiite si ginnaaw nga topp si ginnaaw Baye Mbaye Sarr ci liggéey bi sab taxawaay am na nooy doxe ci dëkk bi ba am na xew-xew bu am tey ci ndaamaato ci benn jàkk boo benn kër boo xam ne da ngeen fekk ay nit ci benn jàkk boo xam ne da faa fekk ay nit ñuy def loo xam ne du war may dëkk bi yow sëñ Modou lool mbir moomu noo ko gisee. waaw léegi daal li nga xam ne moom mooy waa population bi koñ bi muy ña fa nekk te dëkk fa juddoo fa yaroo fa ak ay mag mooy gis nañ fa benn jàkka boo xam ne ak kër goo xam ne mooy kooku ñuy wax naan sëñ Jili Mbacke la tudd. sëñ Jili Mbacke yaakaar naa noonu la tudd. sëñ léegi li nga xam ne moo fa am mooy euh, euh, euh, li nga xam ne gëstu nañ ko te fekk ko fa te xam ni loolu lay dund mooy njàngaleem Serigne tubaa moom waxuñu ci dara bu fekkee da ngaa dugg ci jàkka ji di jàng xasaayit Serigne Touba ñu ne la génnal jàkka ji dégg nga soo dee giñ ci Serigne Touba wala nga giñ ci Serigne Fallou wala nga giñ kenn koo xam ni gëm nga ko ñu ne la kooku ngay giñ giñ ci nit aram na. am na ñu mel ne ñoomit it ñu fi ne ñu bari ñoo xam def nañ leen ay recensé nañ leen dem nañ ba naan jumaay Touba ji nga xam ne Serigne Touba fi tëdd jumaa jooju ay sëg la waaye nag ñoom seeni mbir bari na ci ndax am na ci koo xam ni moom Cheikh Ndiaye la tudd mën naa tudd turam mu ngi dëkkoon ko tey asalem moom bim ñu bim ñu njëkkee woo daf ñoo génneel taswidu sixaar génneel ñu kaamilu alquran génneel ñu tam xasaayit Sëñ Touba. Dari di wax ni yii baax na lool dëgg la manes na ko jàng waaye yii du dara parce que yii gaawul li gaaw mooy nga jóg directement dem ci yàlla te ñoom mën nañoo àggale nit ci yàlla directement léegi nag ñooñu am na ñeneen am na ay renseignement yu ñu fa jël yoo xam ne wax nañu yeneen dañuy jóge bitim réew ni ñëw di ko fekk foofu tey jii ñuy waxee ñoom waa koñ bi ñëpp publicé wu nañ parce que ginnaaw sëñ Cheikh Bat lay bu jàngaloo alxuraan ci Touba dëkk bi yëpp mu ne leen leen alxuraan ci jàkka ak jumaa yi dañuy wax ni loolu duñ ko def ndax ndigalu sëñ Touba la léegi bu ñu demee ba mu jàll nag ñu doog a wut seen njàngaleem bopp wala ñu jàng seen njàngum alxuraanum bopp mbubboo ko invité ñi invité ñi jógee réew ñi jógee fu nekk ñëw tey ji nag moo tax xale yi bi ñu defee tànt xale yi tasbaas ba sànni leen ay xeer daq imam ja ah léegi nag loolu mooy li nga xam ne moo am tey foofu ci ndaamaatu moo am foofu ci ndaamaatu ñooñu nag ñi ngi bëgg a bari tuuba ñu leen di financé ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy nyi génnee ngëm-ngëmi xale yi ñu gëm muy li ñu gëm mën naa ci wax ñett sëñ Sidi Jenn mu sëñ Naar Jenn am na taalibeem boo xam ne euh, yaakaar naa euh, ma nga muritoo xaw ma lansaar la xaw ma dëkk bi ci gannaaw xelkom non am na dëkk bu nekk gannaaw xelkom Lugan taalibe sëñ Sidi Jenn la woon mais ñoom biñ ko détourné taalibe bi dafa wax ne sëñ Sidi li ngeen mënoon jàngal ci daara ji du dara dégg nga bi nyom, ci ñom man ma fa dem bi démé génné nañ ko dëkk bi mé téwul yóbbaale na taalibe señ Sidi bobu kèn xamul fu mu nekk ba nga ni amna ci kèn ko xam talibé señ mustafa Mbar la señ mustafa Mbar mi señ mustafa Mbar men mom señ Modou tafal, Fall sëñ Modou sëñ Moustapha bima bi ma wooyee ñu dem jëli talibé bobu yalla dogal na fexé nañ ba génné ko ci ñoña ñun ba jébalat ko señ mustafa Mbar mu tip mu jéggulu mi ngi commencé nekk attaque ak ñoñu tam bari nañ ci parce que. duñ jullee ci jumaay Tuubaa yi duñ jullee ci jàkka yi yeneen yi ci ne léegi nag ñoo ngi ci interpellé kilifa yi di leen wax ni ñun ci li ñu gis ak li ñu gëstu mooy ñi ngi fiy bëgg a bari ñi ngi fiy bëgg am doole te loolu mën naa dem ba indi fi meneen mbir moo xam ni sëñ bi day wax ñu teggi kàddoom teg leneen léegi nag ñun ndigal la ñuy déglu ndax Tuubaa ku ne xam ndigal moo fi dox. am na ci kenn koo xam ne nii moom keroog bi mu demee ci sëñ bi di jéem a boole ji euh, amu fa ndam dégg nga yaakaar naa sax wax nañ ma ni teguñu ci ay fan wala yooyu nee nañ ma dese dina xaw ma waaye sëñ Tuubaa moom wàllu baatin bi dana ko yoral boppam léegi nag saayir si il faut kilifa yi nekk ci sëñ bi ak il faut ku mel ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy sant bu baax sëñ Abdul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal di ci sant ñeneen ñu mel ne moom sëñ Bass Abdou Khadir ak ñeneen ñu mel ne moom sëñ Mourtala ak kilifa yi Baye Fall ñëpp kilifa yi nga xam ne ñu ngi ciy impliqué wu mooy que ni il faut ñu xam ni ñooñu am na ñu leen di financé di leen dooleel ñu nekk ci dëkk bi di indi meneen jàngale mu bokkutal njàngaleem sëñ Touba bi léegi nag ñun képp koo xam ni bëgg nga incarné ci ñun lu dul sëñ Touba wala nga bëgg a lu dul li fi Cheikh Ibrahima Fall bàyyi woon ak i seexam ak toppante bëgg a jekki-jekki ni cëpp lay rek ni ci yàlla laa jëm ba pare di détourné nit ñi loolu moom wax dëgg yàlla ànduñu ci waaye nag euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ciy interpellé kilifa yi bu baax am na ñu ko fi defoon ñoo xam ni côté que sëñ sooy bu lañ dëkk ci ñooñu sant gay keroog sëñ waaw ci ñi sant gay dem nañ ba ñoom sax boo dalee seen kaw wala nangam ñu porté la plainte dem ak yow ci yoon mel na yoon moom euh, dégg nga la comme sëñ bi moomul dëkk bi am na ñu ci bari ñoo xam mas leen yóbbu ci ay ay gendarmerie mas leen yóbbu mais boo demee. ñen dañ nan problème religion duñ ci dugg comprendre nga kon nak ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi waxat ni kilifa yi nañ xolaat mbir mom bu baax euh tañu taxawaat ci parce que mbir la mu taxaw mo xamni mi ngi taxaw waaw ci dëkk bu sel bi waaw. est-ce que seigne Modou sa taxaway rafet na lol ak ni ngay liggéeyee. ngeel sa numéro woo numéro wer numéro ngeen def numéro wer bo xamne fépp fu ngeen mën tamit lu lu waaye man def loo xam ne du war may dëkk bi mu woo leen téléphone ne la gis naa béréb sàngam lenn ñu jël oto yi sol ci gasoil jóg dox loola ba loolu tegu ci yoon. waaw jërëjëf loolu moom sëriñ moo Mouhamadou ngaa Ngabou moom la sëñ Modou ngaa moom la sëñ sëñ Cheikh Mat lay doyloo mooy sunu jëwrin lépp loo xam ne yaakaar ngeen ni day yëngu Touba ci wàllu renseignement ci loo xam ni sëriñ bi bëgg na ko ci dëkk bi mu ngi ci loxoom xam na lépp euh, lépp lu ci war a jëf. da ndigal dina jóge ci sëñ Cheikh Mat lay jaar ci moom ñun ñu jëf ko parce que ñun sunu voie éracide la ñuy jaar mooy sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Modou Lo Ngabou gannaaw sëñ Modou Lo Ngabou Baye Mbaye Sarr ginnaaw Baye Mbaye ma taxaw gone yi ci loolu l'essentiel que duñ def lu ñu nu digalut mais daal euh, boobu déclaration la ma ci ndigalul sëñ mbay saar téyéer mii sunu jëwriñ ci laa ko defee waaw li ci des nag jëmuwaay ba ak matuwaay ya loolu ci kilifa yi la desee mooy daal nañu xam ne ñu am doole lañ ñu ngi leen di financé bu baax a baax a baax dëgmal nañ Touba ngir li fi nek ñu jëm ko sansé wala ñu jëm ko salfañi lo rek la ci doon am luma wax lu ci dëng ci man la lu ci jup nak ci ci ci serigne bi la ñoy ngi gërëm di sand sant assalamu alaykum wa jere jërëjëf serigne Modou yalla na Touba yagal sa taxaway def nga lu rafet jërëjëf.